Seck dafa am sama benn xarit boo xam ne fa la Idrissa Seck jaar ngir gis ba mu bëggee gis nag bañ ma ko waxee damaa wax ne jamono ci maanaam pare wu ma ngir recevoir Idrissa Seck pare wu ma ngir gisante ak moom waaye nag moom Ousmane Sonko nee na dafa am mbetteel ndax ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru mars fajar cuuy ci fajar si la ñu ko daal fëgg na ko Idrissa Seck ma ngi ci buntu bi Ousmane Sonko ne jamono jooju nag maa ngi teg sama beñu dugub maanaam ngir lan lay wut si heure sama kër daal di wax ki nga xam ne moo ñëwoon yëglu na ko nee ko Ousmane Sonko dafa convalescent maanaam munu ko daal di recevoir Ousmane Sonko na bi mu xalaatee ba mu yàgg mu ne mag mu toll nii fajar ci mu ñëw sama naa ko déglu laaj ko lan lay see Ousmane Sonko nee bi mu waxee ki nga xam ne moom la yónni woon na ko wax ko mu xaar ma nee dafa fekk Idrissa Seck lal ak si jaadaam bay jullee Ousmane Sonko nee na bi mu xëddee ba pare daal di jullee ci la wàcc gis Idrissa Seck na ko loo fi wuta Ousmane Sonko nee na jot naa laaj Idrissa Seck na ko ndax xëdd nga Idrissa Seck na ko fii laa ko yaakaare woon Ousmane Sonko jëm ci wàllum 4 avril bi na nga fexe ba ñëw ci Ousmane Sonko nee na la nga xam ne moom la tontu Idrissa Seck nee na jàmmi réew mi jamono ji nag ci loxol Macky Sall la nekk Ousmane Sonko ci biir journal bi di Walf Fadjri nee na Idrissa Seck comme nee na mooy chef de l'opposition maanaam na jël lépp yéen kay gi di Vox Populi Ousmane Sonko nee na yàggatul dara dina ñëw ci diiwaanu Ndakaaru te nee na lu jëm ci àtte bi nga xam ne moo war a dox diggante mag Adji Sarr ci kanamu chambre criminelle bu ñu ko joxee ay garantie maanaam dina ñëw ndax am na lenn loo xam ne na duutu ko nangoote lu ñu jël texte ko am Ousmane Sonko nee na loolee du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ndax ñaari ba jata ñu ñëw tëj ko góor gi di ko agressé di agressé ak njabootam loolee moo tax Ousmane Sonko nee na loolee mënu tudd a moo tax mu ñëw si gi coora daal di fay toog xool ba xam foofee ñu ko fa barricade waa wala déet moom njiitul Pastef nee na lu jëm ci atte bi moom moo gën am intérêt ngir ñëw ci tribunal bi ndax xam na ne lii nga xam ne moom la ñu wax procès maanaam dara du ci dëgg lépp ay kàcce ki fen la te waaye nag damaa dem ba xam ne trop c'est trop li maanaam mënatuma koo nangoo yéen kay Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na ñi nga xam ne ñooy ay militant ma maanaam bu ñu tëddee nañu nelaw bay yandoora nañu nelaw bay xandoora ci élection présidentielle 2024 ndax moom njiitul Pastef nee na présidentielle loole nag maanaam askan wi la te am na lenn loo xam ne askanu Sénégal ñoom seen bopp ñoo ko wurta nango askan wi ñoo wurta nangu Macky Sall di moo du dem élection loolee askanu Sénégal ñoo ko wurta nango waaye nag askan wi bu ñu nangoo Macky Sall terema bokk ci élection présidentielle 2024 ma xam ko dogal waaye en tout cas askanu Sénégal loolee wuruñu ko ko nangoo lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi fukki sénégalais yoo jël juróom-ñett yëpp d'accorduñu ci ni nga xam ne moom lay yoon di doxee lu jëm ci wàllum dialogue politique bi Ousmane Sonko nee amul yenn jéego yoo xam ne Macky Sall teg na ngir nag yombal dialogue bi ndax mënuñoo jël lu toll ci téeméer ci ay dossier ngàll ko sama ndoddo jël ab paaka teg sama boli ba pare di ma woo ci ab moo lànk ba tëdd sa naaj waan moom Ousmane Sonko nee ko jox ab convocation wala ab citation ngir nag mu wuy ji nee na lii tappale moo am ci biir justice bi Ousmane Sonko ci biir journal bi nee na inspecteur impôt domaine bu ñu leen wax ne milliardaire la xam leen ne kookee sàcc la man bi may nekk jeune inspecteur deux cent cinquante mille la ñu ma doon fay doon naa vérifier ay banque yoo xam ne ay milliards yi milliards yi milliards doon doon te jamono joojee dama doon am sax jafe-jafe ngir jënd ordonnance woo xam ne treize mille francs la naa ñu tension bi am ci politique bi loole nag tax na Alioune Tine ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci société civile bi seeti woon nañ Serigne Mountakha ngir nag mu dugal loxoom ci tension politique bi nga xam ne moo am ci réew mi yéene kaay gi di 24 heures Alioune Tine nee na li nga xam ne moom la wax Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Mountakha daal di wax ak njiitu réew mi di président Macky Sall ngir nag mu daal di teggi tànkam libéré ñi nga xam ne ay détenus politique lañ Alioune Tine wax na ak Serigne Mountakha naka lu ñu bëgg mooy nga waxal ñu ak Ousmane Sonko mu daal di woyofal yéene kaay gi di waa Grand Place xëy duñu xibaar naan ñu dialogue national bi jàpp nañu ko fanweeri fan ci weeru mai yéene kaay gi di la turbina moom nag dafa jàpp ne bii nga xam ne moom la ñuy ŋawta ŋawtee ak di ko woote lépp wàllum dil la journal bi nee na ñu ëpp ci opposition bi ci dialogue bi amul lenn loo xam ne leer na ci terme de référence ay nit nag ñoo jóg bëgg a dialogue ci loo xam ne seen intérêt rek moo ko laal yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu manifestation yi nga xam ne doon nañu ko amal fukki fan ak juróom benn ci weeru mai jëm ci mbiri Ousmane Sonko am na ñaari professeur xam ne lycée bu jululu ñoo ñu nekk soo muy danañu leen génn ci njàng njàngale mi ndax ñaari jàngalekat yooyu ñaari professeur yooyu ci lycée bu jululu dañu leen di joxar baraamu tuuma ne ñoo délogé élèves yi maanaam ñoo wax élèves yi ñu génn classe yi journal bi nee na jamono ji ñaari jàngalekat yooyu dañu leen suspendre danañu leen yóbbu ci conseil de discipline journal bi nee na inspection d'académie bu sigi coro moom radiation la bëgg jamono ji ñu def ko ñaari professeurs yi yéen kaay gii di direct news xëy duñu xibaar naan ñu Bassirou Diomaye Faye ak Anne Bal Jim Seydou Nourou Ba ñooñee retour de parquet yéenekaay gi délibération xëy ñu xibaar mbir mu doy moo xam ne moo xew sa diwaanu Bignona dafa am koo xam ne dafa jaawale doomam akub sàcc daal di koy faat yéenekaay gi nee na doom ji nag ab ASP la woon Maxtaar Kamara lu tudd baay ji da ko jaawalee ko sàcc yéenekaay gi di li quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Bignona googee ba am na lu garaaw lu doy loo xam ne moo fa xew am na ñetti xale yoo xam ne dañu leen a fekk ci benn oto ñu ñàkk seen bakkan yéenekaay gi di sunu lamb xëy wax ci combat bi war a dox diggante Forza ak Franc journal bi nee na suba ci dimanche la Modou